asalaamaaleykum sama waa ASC bëggee naa leen j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax sama gaa yi yàlla na yàlla defal sutura xéwal ak xaalis bu bëree bëri ak gudd fan wax leen amin amin sama gars yi aujourd'hui on va faire une vidéo sur le clip de Ngaaka Blindé Dakar dañ koy seetaan ñu xool benn par benn lan la Ngaaka Blindé bëgg a wax man ma wax leen sama dégg-dégg si clip bi xool ngaa xam ne lan moo tax muy insister ne moom mooy borom Dakar lan moo tax mu focaliser wu si Dakar clip bi tamit tenue africain yi mu sol nu i wari si benn sa promo code 21F la saa besoin di ngeen boni 156 000 francs lien bi ko daan defee si clip bi parce que clip bii nii jar naa def vidéo parce que clip bi dafa nice neex te bi mérité na ay millions de vues yu bëri parce que clip bi ça représente le Sénégal bu ñu seetaanee di nga xam ne ma leen wax. let's go ah. <laughs> ville de Dakar. ba pare mélodie bi refrain bi mélodie bi dafa neex. war ci yàlla si àdduna nga bokk jekk bokk ci planète bi am nga mérite a got martial love for you Dakar laay bilt mooy sama njëriñ doom. mu ne yow ci àdduna bi nga bokk jekk bokk ci planète am nga mérite ak gaat match love for you Dakar live mooy sama njariñ doom man ci sama dégg-dégg laay wax mi ngi bëgg a wax que ni boo maanaam yow boo boo nekkee Dakar wala boo juddoo dakaar wala whatever ah, boo fa nekkee rek am nga mérite ak gaat match love for you am naa amour bu bëri ci yow ndax Dakar mooy sama njariñ doom bokk nga ci dëkk yu mag yi may màggal mag yu dëkk sa dëkk mu ne bokk nga ci dëkk yi mag yi may màggal mag yu dëkk si dëkk bi ku de Dakar rek xam ne dakaar mooy capitalu Sénégal ñu ngi màggal mag yi nga xamante ne moo ñoom ñoo nekk ci dëkk bi ku ne la yàbboon du dëgg Dakar ku fa dëkk dëkk xam nga lu mérite doon ku ne la yàbboon du dëgg ndax Dakar ku fa dëgg dëkk xam nga lu mérite doon ñëpp xam nañ que ni parfois Dakar ñu bëri dañ naan Dakar baaxul wala Dakar day yàq jeune wala wala day lii alors que côté positif bi moo moo ëpp parce que ñun ñu ñun ñu bëri ñun ñi nga xamante ne juddoo nañ Dakar ñun suñ papa yi wala suñu yaay judo wuñu woon Dakar dëkk ba lañ nekkoon di liggéey après ñu bëri ñu daje foofu non affaire affaire yi ubbeeku you know what I'm saying ki xëccoog ambulance yaa ngi taal corbillard buñ ko xaar mu dee ndax Dakar bu taaxee xol yëpp jooy bëggatuma fi jeune bu dee ku xëccoog ambulance yaa ngi taal corbillard buñ ko xaar mu dee loolu ñëpp xam nañ suma juumul mi signifie boo xëccoog ambulance yaa ngi taal corbillard loolu ñëpp xam nañ ko maanaam nga yor sa oto wala nga yor sa mboto wala lépp looy munti yor whatever nga gis ambulance di dem yow nga ne da ngay xëccoog moom yow loolu boo ko defee rek yow yaa ngi taal yaa ngi taal ambulance ku fa nekk rek loolu loolu urgence la boo gisee ambulance da danga kaa war a da nga war a xajal mu jàll loolu rek leçon la pour nit ñi bàyyi seen xel après mu ne bëggatul mu wax que ne buggul comme moom moom mu ne moom déclaré ne moom mooy borom Ndakaaru day wax que ne buggul bëggatuma fi jeune bu dee bépp xeetu mbalit nguur gi est-ce que yéen a ngi dégg ñu wax ak nguur gi mu ne bëggatu fi gis mbalit yi am Dakar bëggatu ko gis nguur gi est-ce a ngi dégg mu ngi wax ak nguur gi ndax Dakar ñëpp ko bokk ku ko bëgg defar tu sais le faire ñëpp ko bokk ku ko bëgg defar tu sais le faire 19 communes ci Dakar war na yombal dem ak dikk bi 19 communes ci Dakar war na yombal dem ak dikk bi maanaam Dakar bëri na commune kon loolu war na yombal dem ak bi talib bi xot xatul xol yi ñoo xat. 54 jardins ci public ku ne mën a génn 54 jardins public kone ne mën a génn féexlu si loolu neex na waaye. ni ni ni ngi wax message am solo ci clip bi. bëgg na police gendarmerie ñu gëna a yokkaat seen sécurité. yërëm askan gi doon ben bu ko bëggatuma fi insécurité. bëgg na police gendarmerie ñu gëna a yokkaat seen sécurité. yërëm askan wi doon benn bëggatu fi insécurité. non c'est dope c'est dope refrain déglu refrain déglu refrain mooy Ndeye Diouf Ndeye Diouf moom moo woyoon son bii nii ba pare ngaax dafa dafa muus xaw ma kan moo ko xelal pour mu dem jëli Ndeye Diouf refrain yu yàgg yi di dugal ko ci clip bi non c'est dope Ndeye Diouf moom moo woyoon son bi wala nga déglu rek seen xel dina ci dem moo woyoon son bi son bi après ñu demaat ci son bi waaw waaw solo la boo bëggee nit bu ko laaj bu ko laaj am <laughs> ñoom dañuy bëgg di laajte rek billaax <laughs> ñu ñëwaat ci refrain Ngaaka Blindé moom ak Ndeye Diouf ba pare refrain bi dafa neex neex dégg ci nopp kuul mu koy way naan ko Ndeye Diouf mi ngi mi mi ngi wax am solo ci mu boo nekkee si réew fexeel nga wax si réew moom boo nekkee si réew fexeel am njëriñ si réew mi wax si réew mi boo nekk si réew amal njëriñ si boo dégloo son bi rek yow mën nga ñëwaat nga ni oh ngaa ko wax na dëgg quoi. pare mu tagg ko mu ne ko yaay borom Dakar ak lu bëri. tooñ nga ci wala maa moom Dakar baay borom Dakar. loolu dëgg la Janj ak Joor fu ci penc ñaari Ndakaaru déglu leen. Janj Joor fu ci fukk penc ak ñaar Ndakaaru déglu leen mi ngi wax tagg mu ne déglu leen ko kon nañ déglu baaba. yaatal xol yi réew mi gën a naat lu tax yi teelu leen. ñi nga xamante ni yaataluñ seen xol réew mi naatul maanaam bu ñu nee Dakar rek ça veut dire Dakar kese la yem ça veut dire Sénégal parce boo nee dakaar rek yow nee nga Sénégal parce que boo nee New York nee nga États-Unis ñi nga xamante ni yaatal xool yi réew mi gën a avancé la moo tax loolu yitteelu leen ñoom ñoom lay waxal nii. bëggee mu dox foog mu sol dàll bañ di def tànku neen. suñ bëggee réew mi dox nañ di sol dàll bañ di def tànku neen. ci buur bi artoo kàddoom aadoom daa bëgg ñu teewlu yéen. artoo kàddoom aadoom oh. gaax la wax ni yow. artoo kàddoom aadoom daa bëgguñu teew lu yéen. ah doom daa bëgg ñu teewlu yéen. kon teewlu yéen gàddu paan yi kon teewlu leen gàddu taa gàddu paan yi te yéen. yéen a ma jox lenge yi ma liggéey xam nga ne bés di tekk si dëkk bi te mën a dëkk si dëkk bi ñu dem. yéen ma jox lenge yi ma liggéey xam nga ne bés di ngeen tekk si dëkk bi. te mën a dëkk si dëkk bi ñu dem lépp lu salte ñu sànni si poubelle su bëggee ñu liggéey ko ba mel ni Dubaï ah. oh c'est dope toog ci dëkk bi maanaam ça veut toog ci dëkk bi. tekk ci dëkk bi lépp lu salte ñu sànni ko ci poubelle yee loolu war na mën nekk barki yàlla war na mën nekk du yomb nag mais war na mën nekk toog ci dëkk bi tekkee ci dëkk bi dont ñun ñi nga xamante ne ñu ngi bëggoon tekkee si dëkk bi toog ci dëkk bi xam nga loolu yàlla def na ñu génn ci dëkk bi peut-être loolu foofu la suñu destin daal mais ñi nga xamante ne ñu ngi foofu nañ gën a góorgóorlu nañ gën a góorgóorlu billaay wallaay nañ gën a góorgóorlu bu baax parce que foofu am na lépp am na lépp dina metti nag torop parce que liggéey metti am fa liggéey metti na Sénégal métti na daal mais nañ gën a jàpp nañ gën a jàpp bu baax parce que ñun Sénégal lañ am Sénégal lañ am billaahi may borom Ndakaaru yaay dëkk bi ñoo ko bokk kon na taaru waaye ngaa xam ne mu ne moom mooy borom Ndakaaru te dëkk bi ñun ñoo ko bokk kon dëkk bi na nañ ko defar na taaru you know sama dég dégg nag laay waxee man ci clip man sama dégg-dégg peut-être am na ñoo xam bu ñu déggee sama dégg-dégg ci clip bi bu ñu ko seetaanee dañ comprendre clip bi. kuy defoo gas bi laay boo ko sulul say mbokk mun na ca daan waaye.